بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبكي جلتي مبكي طالبي مبكي دائره روض رياحين توبا ريفن تيجي نك نين تلبي jotaay bu ñu amal di ci ànd ak suñu mbokk suñu mbokkum taalibe suñu ustaas Moustapha Ndour mu war amal tomb bi ñuy waxtaane tey ji insha allah bala ñuy tàmbali ñu wax tuuti xamle kan mooy suñu mbokk moomu di al oustaz Moustapha Ndour mi ñu war a andil mawdoo bu bees comme ni ko mbokk yi jàll doon defe kon sëriñ Mustafa moomu mu ngi tàmbalee am njàngam ci al imam Ibrahim Ndour ñu gën koo xam ci mam Ndour ba mu fa jógee mu dem ca madrasatu Baay Yuusuf Nduur foofu la continuer njàngam ba mu jógee foofa mu ñëw ci daara jii di al azar mu continuer fi am njàngam ba am achahaada al ibtidaaiya ba mu ca noppee mu continuer am njàngam ba jàll ca daara ju mag jee ca ndaam daarul alimul xabiir foofa la amee shahada al i'dadiya continué ba classe bi wax athani athanawi yàlla dogal ci année boobu ci la inscrire candidat libre pour bac Diourbel yàlla dogal mu jàll am bac ci année bi boobu mu ngi def athani thanawi bi mu noppee itam suñ boroom wërsëgale ko mu jàll ci musaabaqa bi ñuy wax crème waaye yamut foofa mu continuer formation waaye mu continuer itam boole ko ak jaamiatu Cheikh Anta Diop continuer foofa jàngam ba am licence ba fi ñuy wax ak yéen mu ngi continuer am njàngam ca daara ju kawe joojee di Cheikh Anta ñu koy ñaanal suñ boroom yàlla na ko tawfiqale ba magistère bi nga xam ne ci la nekk di ci euh, jub suñ boroom yombalal ko ko te jottale ko ci ci anamu kawe ko mbokki taalibe yi jàll te suñ boroom def loolu lépp nekk ay ngëneel ci moom kon sëñ Moustapha ci tënk loolu lañ doon wax ci kan mooy sëñ Moustapha ak jaar-jaaram léegi nag mu indil ñu tomb bu am solo fas yéene waxtaan ak ñun incha allah muy asifaat al muhammadiya fi lqasaid al xadimiya muy meloy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ci biir xasidaay sëriñ tuuba kon dañuy sàkku ci mbooloo mi rek ñu taatan teewlu bu baax a baax incha allah bu sëñ Moustapha dikkee lépp luñ ci lëntoon rek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 سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض واللقاء ولافتح به فتحا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني العجبى مبكي جلتي مبكي لك dëkkandoo mbokki daayira bi ñu wax Rawdu rayahin Tuuba Refan ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci noyo boobu ak ziyaara yi صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى الخليفة الراشد di ñaan suñu boroom subhaanahu dolli ko kattan dolli ko fan wu gudd dolli ko xel mu teey boo naal yi mu naal ak yi mu commencé yépp suñu borom sottal ko te lépp nekk ci ak teewaayam ak teewaayu mboolem taalibe yi euh, di dellu di jaajëfal daayira bi nga xam ne mooy Rawdu Rayaahiin seeni jëf yu am solo yu ñu taxawé ci walu xam-xam ci biir Touba Refane euh, xam naa bu ñu waxee Rawdu Rayaahiin ñëpp seen xel dina dem ca banek Touba nga xam ne mooy seen njiit ci ñoom la ñuy roy di ci jiital ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci bopp bi di Serigne Issa Faye ak ñoom Serigne Salih Jon ñi nekk ci wetam ñëpp di ko jàppale ci liggéey bi euh, di daglu ngant bu baax kilifa yi fi nekk ak borom xam-xam yi nga xam ne lépp lu ñu fi wax wala lu ñu fi bëgg a wax yépp ñoom ñoo ñu ko gën a xam te mënoon nañ ko wax itam mënoon nañ koo taxawe waaye xëy na seen ak yaatal ak séen ak bëgg boole ñépp ci mbir mi moo tax tey jii seen choix ci ñun euh, ñu fas yéene waxtaane tey ci waxtaani koor yi am tey di ñeenteelu ajuma ci ajuma yi ñu fas yéene waxtaanee mawdon boo xam ne am gi mu am solo man daf ma dépassé pour ma war pour ma jéem koo traité ndax dafa om ñaari mbir wala boog ñetti mbir wala ñeent yoo xam ne benn bu ci ne rek motoon na sek ñu taxaw ji bi ci jiitu mooy melokaanu yonit bi sallallahu alayhi wa sallam boobu rek doyoon na sek ñu waxtaane ko waaye bu ñu ko doon waxtaanee ay at itam du jeex beneen ñaareel bi mooy xasiidaay sëriñ Tuubaa yi nga xam ne képp ku di gëstukat xam nga ne ab gëstukat mënu koo jeexal ci li mu bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon benn mawdon la boo xam ne dafa om ay point yu baree bari ci biir te point bu ne dina am solo incha allahu rabbi ñu koy tënk ci langu arab as-sifaat al-muhammadiya fi al-qasaid al-xadimiya nga xam ne même ki jàngut araab sax bu déggee ni ñu ko teggee ci baat yi ni muy ni muy ni muy ni muy toflantee war naa yëg ci xolam xam ne am na ku ñu wax war a waxtaane ku am solo kon waxtaan wi bu neexee suñu boroom dañ ko fas yéene jaarale ci ay poñ euh, poñ yooyu bi ci jiitu mooy dinañ waxtaanee lan mooy aw melo bu ñu waxee sifa luñ ci jublu ñaareel bi ci topp dinañu wax alsifaat almuhammadiya fi l ayat alquraniya maanaam alquranul karim nan la àndee melooy yonit bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ci jógee dinañu wax al ahadis annabawiya nan la àndee meloow yonit bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ci jógee nag berestalu ñëw ci mbindum sëriñ bu mag bi balaa ñu dugg ci mbirum sëriñ bi dangeen xam xam ngeen ne mbir mu ne am na lu ko tax a jóg wala mbir mu ne bu amee am na lu ko amal muy ay motivation maanaam bu ñu doon bu doon imaginer di jàngat mbirum sëriñ bi dañu naan sëriñ bi lan moo ko tax di woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo ko tax di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala ñuy wax ci tag yi bala ñuy wax ci lan moo ko taxoon di tag nañu jéem a xamle tag maanaam al madhu fi mafhumihi as suufi maanaam tag ci wa ahlu tasawuf wala ulamaul adab nan lañ ko gisee buñ ci jógee di wax ci sifatul sayidna muhammad al xalqiya maanaam jikko yonent wala meloo yonent bi sallallahu alayhi wa ci bind ci formo nan la ko suñ borom bindee ñu jaare ko ci mbindum Sëriñ Tuubaa buñ ci jógee itam dinañ wax sifaat sayyidina Muhammad alxuluqiya maanaam meloo yonent bi sallallahu alayhi wa ci jikko boobu nag bari na lool ci mbindum sëriñ bi bu nga xam ne xëj na gëstu lépp dina jafe lool waaye insha allahu rabbi li ñu jot a yër dinañ ko bokk ak yéen alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lxaali wal maali mbokk yi xam ngeen ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bin àdduna bin ay nit wàcce leen ci suuf nit ñooñu kam ci bakka jëkka bindi seyduna aadam alayhi salaam bi mu bindee seyduna aadam jox ko mission bu mag ci kaw suuf muy mu gouverner ñi muy fekk ci suuf te ñu koy wax ab yonent seyduna aadam moom itam am na yonent yu bari yu topp ci ginnaawam boo ki ci mujj di yonent bi sallallahu alayhi wa mii nga xam ne ci moom la ak nubuwa jeexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomu nag ak mboolem yonent yi fi suñu borom mës a yónni yépp xam nañ ne suñu borom du mës a yónni coomo maanaam du yónni ku matul ci bin ak ci jikko ñoom ñum yónni yépp yonent yépp mission bi leen suñu borom joxoon mattale nañu ko te wàññiwuñ wàññi wàññiku wuñu ci dara waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne suñu borom moo ko ne yonent yi fi yónni yépp yow yaa ci gën a mat te yaa ci génn yonent bi sallallahu alayhi moom nag am ay melo euh, melo yooyu te ñu koy wax ay jikko buñ koy xamle dañuy wax ne aw melokaan mooy li nga xam ne moom la nit ki baaxoo moo xam da koo yaroo moo xam da koo tama def wala sax da koo euh, def ci ci jëmmam boo mujj niroog moom maanaam moo xam ak colka la moo xam ab couleur la wala sax boromam daa sakku xam-xam ba ñu koy wootee boroom xam-xam wala sax sakku wut xam-xam ba naan dafa réer ab jaahil kon loolu lépp ay melo la maanaam nit ki dina euh, habitude woo benn benn mbir mi boo bu ñu ko gisee dañ naan borom xam baa nga ne wala ñu ne ku rafet kaa nga ne wala borom yére yu weex yaa ngi ne kon loolu mooy melokaan. am ñeneen itam ñoo xam dañu ne melo moom mooy nga personnaliser dundu nit ki ci ay awaatifam maanaam ay yëg-yëgam ak ay tasarufaatam maanaam nga xool nit ki nan lay yëgee ak nan lay jëfee nga ne kii kon kat nii la mel bu fekkee dafa gaaw a mer ñu koy tuddee kon kii melokaanam mooy ku gaaw a mer bu dee ku gaaw a kontaan ñu ne dafa gaaw a kontaan loolu nag ci niñ koy xamee mooy d'après bi ñu xoolee nan lay nan lay réactionné maanaam nan lay nan lay jëfee ak nan lay yéegi encore euh, bu ñu paree ci melo yi daal di wax alquraanu karim nan la àndee melo yonit bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne bu ñuy càmbaraat alquraanul karim mi nga xam ne suñu boroom moo ko wàccee euh, alquraan moom mu ñu wàccee suñu boroom mu ngi ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am ci ay ayaat yu bare bari yoo xam ne dafa ñëw di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko waaye itam di wone mottug bindam nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee avant woykati arab yi di ñëw di ko tàgg suñu borom moom moo ko jëkk a tàggal boppam ci alquran karim daal di wax ne laqad jaakum rasulu audu billahi min alsheytani rajim laqad jaakum rasulu min anfusikum azizun alayh ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufur rahim gis ngeen maanaam ab yonent dikk na ci yeen boo xam ne du leen sonal ci dara ba noppi xër la ci yéen yéen jullit ñi yépp waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ku am njéemant la ci yéen te ku am mane ci yéen mooy rauuf ak rahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ulama u wax ne bi ñu càmbaree aaya bi dañ ne yàlla daa ñaari tuur ci tuuru yàlla suñu borom muy asmaul husna dal di ko jox yenen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy rauf ak rahim kon nga xamne yenen bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moko ko melal ne mom ku ku am yermane ci nit ñi la waye tem ku am ñewent ci nit ñi la yenen bi sallallahu alayhi wa sallam itam suñu borom moko joxoj ne borom jikko ju bax la top len ko mu dem bo wax ne may yuti'ir rasul faqad ataa allah kep ku top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne man suñu borom topp nga ma loolu li tax mu wax ko mooy xam na ne euh, mattug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bin daj na ci moom boo képp ku mu ne toppal yonent bi rek boo ko toppee topp ma euh, loolu wane na ne moom suñu borom ko ab cër ci bin ak ci suñu borom itam moom mooy waxal ne euh, képp kep ko ne bëgg ngaa jub xoolal yu xoolal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy defee ak ni muy waxee nga roy ko wa in tutiuhu tahtadu wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee rek daal di gindeku ku bëgg a gindeku boo toppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama da nga gindeku ak yeneen aaya yoo xam ne day wax ci màggug yonent bi ak jikkoom wa innaka la ala xuluqin azim suñu borom daal di ko tàgg ne ko وإنك لعلى خلق عظيم لول بني دمي جي أودا بائي نيوم سين صالح بني بني بني تامبار وإن آية بيد وإنك لعلى خلق عظيم دانيو جيلات حادثة بي أمون مانام خيو خيو بي أمون ديغانت يونيت بي صلى الله عليه وسلم أكعب كعب ابن زهير nga xamne kaabu togn na yonent bi sallallahu alaihi wasallam togn go xamne jigi won na dayo bo mu ne kep ku gis kaabu ci julit ñi mon nga ko reey te boo ko reyee man maa warlul aljanna dara du la ci fekk bo ñëpp kenn ku ne daas sa jaasi dugg ci biir rek bi di war kaabu kon xam nga yoon bi mere woon na ko kaabu moom nag déggoon wax jooju ne moom warta mën a dee ci euh, ñu koy jaxase ak ak yonent bi sallallahu alayhi donte ne moom euh, lam lañ ko tuumaaloon moo ko def waaye comme xam na yonent bi sallallahu ne moom rauf la rahim la moo tax mu bàyyi la mu doon def lépp dem kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ko xamee baanat su aadu googu bu xasida bi jeex nga xam ne wax nañ ne bi mu duggee kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dugg see dugg si rek yonent bi sansi kanam ñëpp foog ne yonent bi day jël ngànnaay daal di ko rëy mu commencé moom bu commencé woyam yooyu baanat su aadu fa qalbil yawma matbuulu mu tayyamun israhalam yuf da makxulu di xas di xasal daal nga xam ne wax nañ ne avant muy wax li mu bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wa rek avant mu koy jéeglu wax na salaas wa salaasina baytan baytan ci ghazal maanaam cent 330 ci ay bayit ay ver yoo xam ne wax na ko ci ghazal avant muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko euh, njéegal ak ak ak ak ak yërmade maa ngi ko yaakaare ci yow nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu wuda bàyyi nee nañu li maanaam patience bi mu am ak muñ gi mën a am ab woykat taxaw fii boog laa woy ñetti téméri bayit ak fanweer nga taxaw mën muñ loolu kon loolu moo ñu xoolaat ko ba ci biir ne ko wa innaka la ala xuluqin adim maanaam yow kat sa jikko yu baax maanaam jikko yu baax yépp daje ci yow te suñu borom bi mu koy wax daa jëfandikoo xasam muy giñ ak ak tawkiid wa innaka la ala xuluqin adim kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom moo ko jëkk ci jikko waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam moo jëkk a tag boppam ci jikko ak ak ak matug euh, matug bin ndax buñ deloo ci xadis wax nañ ne saxaaba yi daanañ ñëw ngir bëgg a xam jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak di ko roy ñu ñëw laaj sayyidatina Aïcha naan ko lan moo nekk jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina sayyidatina Aïcha ne leen kaana al alquranul karim maanaam bu ngeen bëggee xam jikko yonent bi sallallahu alayhi xool leen alquraanu karim maanaam mooy li leen alquran tere loolu la yonent bi di tere moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa du def lu alquran di tere du moy itam ndigale alquraanu karim kon foofu la jikko ju tëj mën a mën a yem waxaat na waxaat na feneen itam ne euh, suñu borom moo ko tànnal boppam maanaam suñu borom moo ko tànn ci ak giir giir goo xamante ni nii gu ñu xam la ci sharaf ak tahaara maanaam moom ci niñ ko mën a waxee ci biiru gir gi mu bokk yépp kenn musu def lu bon ci seeni maam ba ci seeni mamaat nga xam ne famille bi mu bokk suñu borom da koo tànn famille famille booba suñu borom tànnaat ca bani hashim famille boobu suñu borom tànnaat ca quraish quraish moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man yonent man yàlla moo ma tànne ci biir quraish ma doon fakk fi génn kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo jëkka wax ne borom jikko ju rafet la ngir rationaliser ko manam wàcce ko ci dunduk doomu adama comme seigne Moustapha job nim ko waxe ci umda ba mune al madhu huwa al istihdar al mala'i lil mazaya al mustafawiyya wa taf'iluha fi jawanih al nafs al bashariyya manam tewlu magu suñu borom bi ci may mu may yunus bi sallallahu alayhi wasallam bonopi rationaliser ko manam wàcce ko ci dundug doomu adama ba ñepp mëna xamne kon yeneen bi ni la meloon xam nga ni serigne touba buñu jangate jàngatee mbiram yépp te dinañ ci ñew inshallah xam nga ni même bu dé yow gisoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la duggalé ci jazbu tégalé tegale bi sallallahu alayhi wa sallam diko diko wasfu diko melal di nga xamne kon bi ni la meloon ci ci bit ci bin ni la meloon ci jikko ju baax kon lolu moy tag serigne touba nag Euh, moo waxal boppam ne li tax muy tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sàkku ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala maanaam sàkku ngërëmal suñu borom te mooy suñu borom gërëm ko jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne suñu borom moo ko tànn ci biir yonent yi moom moo ko waxal boppam ne daani ila madxi nabiyil daani ila madxil daani لمدحي مع صلاتي على النبي ودادي ولي قد زان سجعا وميزاني ولي قد زان saj'i wa misaani maanaam li tax may tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ak di julli ci moom mooy cofeel gu ma am ci moom widaad yi maanaam cofeel gu ma am ci ci moom mu waxaat feneen ne daani ila madhi nabi hubbu zaatihi maanaam lil lil ma motivé ba may tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy damaa boog jëmmam ju tedd ja دعاني إلى مدح النبي حب ذاته alayhi salaamullahi ma xusnu ridwaana mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne suñu borom moo ko bëgg cofeel gi moo ko bëgg moo tax ma koy tàgg kon mu waxaat feneen ne daani li ixdaami nabi xubbu zaatihi li tax may liggéeyaloon li tax may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dama bëgg dama bëgg jëmmam ja بحبي رحيما لم يزل قد رحمانا te bëgg gi ma ko bëgg nag mooy gi bëgg gi gi ma bëgg suñu borom mi nga xam ne moom du deñ mukk di yërëm mboolem mbindeefam yépp bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam moo ko yóbbu woon boo mu wax ne palaasam amatul espace bu mu fi bàyyil keneen ku muy bëgg moo xam ay doom la moo xam alal la moo xam njaboot moo xam lu mu mën di doon nga xam ne mu wax ne محت محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولداء maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi ma ko bëgg dafa far ci sama xol may bëgg ay koom maanaam malazaatu dunia ala innama alxayaatu dunia almaalu wal banuun ziinatul xayaati dunia maanaam bëgg doom ak alal yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ma bëgg moo tax loolu bëggatuma ko dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mu ne nag samay lu mu am ci sama alal ak lu ma am ci sama njaboot ak lépp jël naa ko daldi ko jottoog yonent bi sallallahu wa sallam mi nga xam ne duma mos di dëñ di doon am mbindaanam ab liggéeykatam ñaareelu poñ bi ci motivation yi li tax Sëriñ Tuubaa doon tag yonent bi mooy yéemu gu mu yéemu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yéemu gu mu ci yéemu ndax euh, mbindeefu yàlla bi nga xam ne suñu boroom moo ko wati mu yonent bi sallallahu alayhi wa nan la ko suñu boroom mën a tegee def li mu def ci lépp li mu def ci moom lépp jaarale ko fi mu jaarale fi mu ko jaarale boo fi mu yéeg si maanaam yéemu gu ci Sëriñ yéemu woon moo taxoon loolu bokk na ci li tax mu koy tàgg mu wax ne man jaala fi ruyati man saawaahu taiba muxjilan wala yaraahu maanaam yéemu na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ne képp koo xam ne yaa ngi jéem a wéri wala yaa ngi jéem a xooli képp ku ku tolog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci martaba ak ci bin nee da ngay son bala kook am gàcce waaye doo mës gis ku mel ni bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di waxaat ne billaahi lam yati wa laysa yaati mu ne billaahi ci yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos ta ñëw te du mos a ñëw billahi lam yati wa laysa yaati yonent bi mos ta ñëw te du mos a ñëw mislu bnu abdillah abdillahi zil ayaati ku mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu fee ñëw te du fi mos a ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu waxaat feneen ne ci xasida boobu mu tënkee alxaqu min rabbikum mu ne lam talidi nisaau maalan xaalan wa maal maanaam jigéen ñi nga xam ne ñooy andi doom ci kaw kaw suuf nee na kenn dootu ci andi ku mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam talidu nisaa'u xaalan wa ma'al misla nabiyil muntaka na fi dalal maanaam kenn du andi ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxaat ne li tax kenn du ko andi mooy xaaza maqaaman lam yakun li gayrihi bal faaza kullu faiqin li xayrihi bi xayrihi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci ay maqaama loo xamante ni nii kenn ci nit yàlla yi duñ ko am kenn ci nit yàlla yi itam amu ko ba ci sax mu ne képp ko am martaba ci ngeneel yonent ngeneelal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ko amee xaaza maqaaman xaaza maqaaman lam yakun li xayrihi am na maqaama am na ci maqaama loo xam ne kenn ku dut moom du ko am bal faaqa bal faaza kullu faa'iqin bi xayrihi waaye képp ku kawe képp ku raw ci ngeneen la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la la rawe maqaamuhu faaqal maqaamaati lula salla alayhi man hada man hadaahu watala mu ne maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kawe na maqaama yi fi jaaroon yépp sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom mu kennal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ne ko muhammadun fardun yafuuqu tasniya wa faaqa jaman walhadaya mugniya yonent bi sallallahu alayhi wa kenn la te kawe na ñaar kawe na ñett yonent bi sallallahu alayhi ni ko suñu borom bindee kenn kese la beneen bi ci li waral yoon bi mooy jàpp gu mu jàpp ne tag yonent bi sallallahu alayhi wa farata la moom sëriñ Tuubaa dane tag yonent bi dama ko def muy farata ci man manam bu ko deful rek day melni bayina farata def na bakar mom non la ko mom serigne tuba motax tax mu ne madixuka ya baraya ibadatun yanaalu bihi lfawza alladi daama yamdaxu maanaam manam la yow yonent bi alaihi sallam ibaada la manam la manam tag gi ma tag dama ko japp dama ko jappé jam gumay jamu jaamu borom xamné farata la sumay joxé موخات نه دعاني الى مدح المقفى محمدي اطاعه رب موسل بي ذوي رشد مانام ليل ما يوبي تي ماي تاك يون بي صلى الله عليه وسلم موي توب سونو بروم ميغا خامني موي اغالي موي اغالي نيت ني تي موم اغالي ايتام موسل بي ذوي رشد موخات يعد مزاياك التي لنتها لها مانام سي ماي دال بو نكوي خول ken munuko koo amut ab daytal maanaam kenn mënu koo lim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne fi mu jaar ci àdduna ak li suñu borom defal ken mënu koo lim maanaam xale mu mënu koo lim làmmiñ itam mënu koo lim loolu tax yonent bi Sëriñ Tuubaa ne yauddu mazaayaka allati la intihaa lahu madixi alladi alzamtuhu saaya alzamtuhu nafsa bi saayi maanaam dama koo gal mu doon farata ci moom nga xam ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak wax ay ay mayam farata laa ko def ci sama kaw bakkan mu ne min zaltazamtu lahu fi kulli ma sanatin daynum ci daaxin bi abyatin garibaati tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama koo def daynu maanaam bor bor boo xam ne même bu ma ko lebee dama ko war a fay kon mu waxaat feneen ne madxu rasulil karim al basit ajabi min al muharrami daynun lii ila rajabi maanaam tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama ko def bor mu commencé ci muharram bu ca rajab nga xam ne diggante boobu yépp day tag yoon bi sallallahu alayhi wasallam mooy la doon wax salaatu sitta bi madh sitta beneen bi mooy eh, jaajëfal gu mu jaajëfal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xetli gu mu ko xetli xam naa sax murit yi foofu lañu foofu lañu royee boo di wax jërëjëfi Sëriñ Tuubaa ndax kenn ku ne am nga droit ki la xat li nga koy sant di ko gërëm kon Serigne Touba mom mo jëk a sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam di ko gërëm ci xat li gumu ko xat li ci suñu borom ndax mom mo wax ne dalla allah ala muhammadi wa qadani muhammadun lis-samadi manam suñu borom moma tektal ne ma pour nga ñëw fi fo nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi yóbbuma ba ci suñu borom loolu yomb na li tax sant nit am solo xëy na ñi nga xam ne dañu ne kenn war a sant ku dul yàlla ci exemple rek bu ma bëggoon a gis président Bassirou Diomaye tey jii euh, comme xëj na sëñ Mor fay mais moo fi sant fay xëj na moom comme Bassirou fay la sant moom fay la sant bu ma moo ko bëggoon a gis tey jii te xam ne jote ci moom du yom mën na maa jaar ci sëñ moor sëñ moor jaarale ma ci protocole bi ba ma yegg ci sëñ bas sëñ Basiir Jomaay ar rais léegi bu ma yégee ci président bi ba mu fajal ma sama yitte ji ma doon sàkku ci moom bu ma génnee kan laa war a sant damay war a njëkk a sant sëñ moor naan jërëjëf sëñ moor yow mi ma jotalee ci président bu ma wax ko sama soxla kon loolu la sëriñ Tuubaa tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam dallani allah ala muhammad suñu borom moma teggital yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa qadani muhammadun lis samad yonent bi sallallahu alayhi wasallam yobuma ba ci suñu borom subhanahu wa taala mi kilifa gi kon sante gumu mu xéwal yu ko suñu borom defal bok na ci li tax mu li tax mu don tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam موتاخ موني دعاني الى مدح الم... دعاني الى مدح المقفى محمد شكوري فريدا لم يزل قد تدا نافع لم يزل خير نافع مانام ليل ما يوبو ما تاغ يوني صلى الله عليه وسلم موي خامني آه،, أه... لم يزل شكوري سانت كيغا خامتيني ني موم كين لا موي موي سونو بروم سبحانه وتعالى دعاني إلى خط شكوري بمرقمي لمن كلك لي نورا بخير الورى شحن مانام كيغا خامني مو فنسل سما خول اك لير مو يونس صلى الله عليه وسلم اك كيغا خامني موما جوتال لير يوي موي سونو بروم لي تخ ما يكري سما بين مي دي لن تاغ نيو نيو موي خيوال غوما يونس صلى الله عليه وسلم دفن ñu ñëw ci beneen point bi mooy sifaat sidna muhammad al xuluq al xalqiya maanaam bindi wala melo yi nga xam ne melo yi nga xam ne suñu borom mel euh, bind na ko yonit bi sallallahu alayhi wa sallam te serigne touba jëmmal ko ci xasidaam yi nga xam ne boo demee ci qasida jazbul qulub ak yeneen xasida yi sax di nga ko fekk mu leer nañ mu wax ne yaa mulhiman qad waffaqa صل على من خلق والخلق فاق خلق كالخلق والتسلم mu ne yow suñu borom yi nga xam ne yaa ma winkale yaa ma defal tawfiix yàlla na nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gën a suñu borom mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne kawe na mboolem mbindeef yi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko imaginé ci formoom mu ne نجولت قتت قد كان ذات وسط في الخد جال السطط مانام يونس صلى الله عليه وسلم نجولت قتت تشب تخواي ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم مانام شب تشب كلور خاسل بويخ تل وايتام نيولul kukitam ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم خاسل بويخ تال نيولul ba ba ne kurum manam limu gëna jege dal moy ku ku duggi doom manam xéssay bu bu jege ak xongaay mom la non la yoon bi sallallahu alayhi wasallam kon gàttul guddut xéssul bo wéx waye itam ñuulul ba ne kurum mom sallallahu alayhi wasallam mu wax ne walam yakun mutahama walam yakun mukalsama bal faqa kulla man sama min muntamin li aadami moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëyul bo ne fatax manam nekul ku am yaram lol waye itam nekul ku sew lol itam walam yakun mu nekul ku rëy lol walam yakun mukalsama nekul ku sew lol bal faqa kull man sama min muntamin li adami waaye képp kuy wo ci yonent yàlla adam mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gena mo la gena kawe كان يقول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسع العطن يضحك بالتبسم يونس صلى الله عليه وسلم كاوينا كيب كومس دي دوخ اندك موم مانام بو موسي تخاو دي دوخ كيب كو اندك موم مولاي كاوي تي اب نجولاي لولو تي معجزات لا بوك بو نين توغي ايتام مولاي جينا كاوي تي توغاي وهو جليل قلب بياضه مشرب بحمرة وأهدب وأنجل ذو رسمي yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ku màggoon nu muy nu muy soppaxndekoo ci mbir yi la maanaam dañoo wax ne lu mu mës a sol rek da koy jàpp maanaam yére bu mu mës a sol rek day ànd ak moom bu solee lu weex ñu ne moo ko jàpp bu dee solee lu ñuul mu ne ñoo ko jàpp bayaaduhu musharrabu bi xumratin wa ahdabu maanaam weexaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa gën a jéng dem ci ak xonq waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku amoon peru bot la waaye itam ku ñuuloon peru bot la yaftaru fi asnab tisam kal barqi aw xabbil aw xibbil xamaam wa daxkuhu yajlu salaam ka surujin fi zulami mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan reyee daawut aqtaay waaye da daan muuñ muuñ goo xam ne day mel ni malxat wala ak melex gu jolli ci biir ak lëndem comme buy taw ni muy def ak taw buy taw muy melex nga gis mu mel ni day taw glace nga gis ni glace yi wàcce bu melaxee ni mu ni muy def maanaam bëñam yi daal bu muñee noonu nee na gémmiñam gi noonu lay def wa wajhuhu mudawwaru wa huwa xamiisun azharu nee na yoon bi sallallahu alayhi wa sallam kanamam ga jëmmam ja dafa dafa uh, ronxon wala tuuti mbalu lañ koy wax yakkan manam maanaam jëm ju jëm ju amé woon forme ron lay am waye nak amul won ab bir bir bu reuy yunus sallallahu alaihi wasallam ku ku dig doomu la won ci ab bin bindu bir wa huwa bahiyun asmaru daram ba itam lu rafet la won ñuulul won ku kitam murat ci lu takallumi sa bu de bu don wax itam day teglante wax ji manam wax ji day du du wax di delluwaat loolu bi ma koy bi ma bi ma bi may bin affaire yi bi may bin baxsu bi sama xel laa dem ci Serigne Muntaxa ni muy waxee maanaam baat bi ni muy diibee nga xam nga mel ni da ngay dégaat beneen baat ci biir baat ci buy wax murattilu takallumi ka anna ma addahabi fi xaddihi almuhaddabi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li mu jekkee ay tuñ ay lex boo ko dee misaal day mel ni ndoxum wurus la sotti ci tuñ yi ndoxum wurus yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne bu muñee ni ni wurus di mel noonu la noon la lex ji di mel wa kaana sabtal qasabi moom ku jotoon ay cer la maanaam yorul woon cer yu cekk yorul woon cer yu gàtt yorul woon cer yu nooy walla yu lax waaye ay cëram dafa jotoon sekk arniduhu du chamami moom bakkanam ba dafa bokkoon ci giir goo xam ne lañ leen a xamee bakkan yu yu kawe maanaam bakkanam bi dafa kawe woon jëm ci suuf ci kaw tap ndaaru doon kaamil udnin adaju maanaam suñu borom ni mu ko bindee woon mooy ku amoon nopp nopp yu jekk la maanaam wa ashna mu ashnabun mufallaju ku amoon sakkal yàlla itam maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni suñu borom binde woon daa amoon sakkal yàlla wa ashkalun mubtahiju ku rafet itam ku rafetoon itam forme la wala wajhu kanamam ga da daan far njaqare wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi shiyami kon Sëriñ Tuubaa loolu lépp boo ko bëggee teg mooy mbindeef yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën a mat wa huwa akmalul wara moo gën a mit ci mbindeef fi xalqan wa xulqan zahara ci bin ak ci jikko wal mislu qattu lam yura ku mel ni moom desu ko mës a gis mësu koo gis wala yura fi shiyami te desu ko mës a gis itam ci cam si kon loolu mooy asifaat al xalqiya ñu ñëw ci asifaat al xuluqiya maanaam jikko yonent bi sallallahu alayhi wa yi mu jikkoo woon boo ñoo ko ko doon tàggee xam nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa ku déggu woon la ndax euh, suñ boroom moo ko jëkk wax ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf al ustaas Seyd Moustapha Ndour assaameliyu hmm? waxtaan wi am na solo lool wax dëgg yàlla kawe na njort xam naa ku doon taatan moom moom dégg nga lu kawe sa njort daal wax dëgg yàlla mawdoo bi nose nga ko muy tàmbalee ci séddale ko ay tomb tomb bu ci nekk nga yaatal ca lu bare bare bare bari comme ni nga ko bingai rek bi ngay tàmbali muy mawdoo bi dafa nekk loo xam ne géej la géej nag moom kenn mënu koo jeexal da ngay def ca la nga man rek bàyyi fa la ca des kon mawdoo mi mo bindo nono wa limu muy yaatu yaatu itam wax dëgg yàlla yaatal nga ci lu ama am solo ba ku ko dégg xam ne gëstu nga ci nga ci kon yàlla na saa fay la fay mboolem ñi koy topp ak ñi am yéene ji ñi koy topp ci jataay beeg ñi koy topp ci euh, lu mel ni sit internet bi ñu jàkkaarlool muy Refane TV ak mel ni Baol Média yépp kon ci tënk rek ni nga xamante ne nii moom la al ustaaz tënke mawdoo bi mu ngi tàmbali xàjjale ko ci ay point ay tomb ba ca jiitu mooy maanaa sifa maanaam lan mooy bu ñu waxee melo mooy lan melo bi ci topp mooy melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim bi ci topp mooy ay meloom ci al ahadis an muy ci xadis bi ci topp te nga xam ne moo nekkoon lu lubbul mawdoo mooy dëgg-dëggi mawdoo bi ñu taxoon a jóg muy melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasaayid seexul xadim kon fiñ ci jooyale suñu commentaire rek du yaatu ndax mbokk yi xaj na du ñàkk bu amee ñeneen ñoo xam ne dañ cee bëgg a commentaire ñoom itam muy bi ci jëkk melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran doyoon na sëkk rek muy aaya boobu mu junj mu tudd muy wa innaka la ala xuluqin azim jooju suñ boroom waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa yow daal dëgg-dëggi jikkooy ju màgg rekk a nekk ci yow jikko ju màgg rekk nga ame te sëriñ bi jël aaya boobu daldi ci way xasidaam gu siiw googu di am amdaax nga xam ne benn xaraf bu ci nekk mu def ko bunt way ca fukki bayit ak ñaar nga xam ne loolu rek euh, doyoon na sëkk waxtaan doyoon na sëkk waxtaan ba noppi itam nga xam ne suñ borom ba mu bindee doomu aadama ba noppi dafa wax ne dañoo bind doomu aadama ci gën gaa rafet aw bindiin gën gaa rafet aw bindiin waaye am na leneen lu mu ca teg muy suma radadnaahu asfala saafilin ila alladina amanu wa amilu saalihaat kon nag euh, ñooñu nga xam ne ñoom la suñ borom bind bind bu rafet boobu ba noppi am ñoo xam ne dañoo delluwaat gën a suufe luy suufe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak ay gaayam jege ñu ñooñu sax ndax la tax nit ki di delluwaat foofa loolu ci nit ki lay dellu ci moom lay dellu suñ borom waxaat feneen ne muhammadun rasulullahi waladina maahu ashdaw ala alkufaar ruhamaau baynahum yonent bi de moom mook ay gaayam ñi nga xam ne ñuy saxaaba ya ñoom ay nit lañ ñoo xam ne dañoo yore jikko ju ju mat jikko ji mooy lan ashiddaa'u alal kufaar ruhamaa'u baynahum bu dee seeni noon moom dañuy tar ba nga yaakaar ne ñi dara yërmande amul ci ñoom waaye bu nekkee ñoom ci seen biir yërmande rek la ñuy doxalante ci seen biir te mooy la sëriñ bi doon wax naan kiltaa yadayhi lahaa saa'in tulaasimuhaa bazlun wa ba'sun liman laanu wa man wa man jaaru kon bu ñu dee lim li ko suñ boroom wax ci alxuraan ci ay jikko mënuñu koo jeexal buñ demee ci ahadis ci loo xam ne yoneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax wax na ne man dey tànneef laa ci ay tànneef tànneef laa ci ay tànneef ndax xadis ba dafa wax ne yàlla dafa bind aadama tànn ca tànn ca ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne man tànneef laa ci ay tànneef waxaat ne suñ boroom moo ma yar waaye rafetal samay teggin yàlla nag lu mu rafetal moom dootul ma sa ñaaw waaw ci mat gi nga xamante ne suñ boroom binde na ko ko nga xam ne moom la sëriñ bi di wax te sëñ Moustapha wax na ko léegi muy wax ak malul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura wala yura fi chiyami moom de mooy ki gën a mat ci mbindeef yi ki gën a mat ci mbindeef yi waaye tudd ci ñaar yoo xam ne mooy moo nekkoon li ëmb mawdoo bi muy xalqan wa xuluqan maanaam ci bind shakl waaye nag ci jikko ci jikko itam kon loolu moom la sëriñ bi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam waxaat loo xam ne day dàq ak mànkite muy la mu waxoon a ana nabiyu daxukul xattaal man daal maa yonent bi nga xam ne bu reetaan jotee damay reetaan waaye bu rey jotee it damay rey moo xam daa nekk di jàmmaarloog aada ya wala lu suñ boroom daganal la ci ñuy jëfandikoo ci mala yi mu war koo lewetal ndax am na ñoo xam ne benn côté bi rek la ñuy mane duñ mane ba ca des loolu nag mànkite gu gu fees la moom nag loolu suñ boroom bindewu ko ko buñ demee nag ci xasaa xasaayidi sëriñ bi liñ ci mën a tënke yaatu na lool al ustaas indi na ci lu baree bari xaj na dañ ciy tënk tuuti rek comme ni ma ko waxee léegi muy kiltaay day hilaha saayun tulazimuha bazlun wa basun liman laanu wa man jaaru moom daal ñaari loxoom yooyee amoon na jëf joo xam ne dafa taqoo ak moom lu ca jot rek mu jëfe ko hmm? moom am na ci loo xam ne bu dee ay rek ayoo jot na xeex jot na moom acca bu dee itam joxe jot na moom acca waxaat ne moom sëriñ bi li tax muy sant yàlla yàlla da koo jagleel liggéeyal yonent bi nga xam ne salaay salaam mooy aji farji ji bàkkaar shakartuhu is xasani bi xidmatin maa xisani za xidmatin fi laalani lahu wa fakka walami waxaat ne innam tadaaxal muntaqa li salaba xayran kasiran bi rida fan salaba tagg yonent bi sallallahu alayhi wa de moo ma rekkil aw yiw wu baree bare waxaat ne yonent bi salaay salaam de moom kawe na képp koo suñ borom feeñal na إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق زمن واخجن تجن على الورى اصطفاه من أبداه سن بروم دفا سيت ci mbindeef yépp mu tànn ci koo xam ne mooy kawe ñépp mu teg ko place boo xam ne yemalewu ko ak kenn kon daa mel ni pour bañ a gën a guddal rek di lëntalaat mawdoo bi al ustaas indi na ci loo xam ne doy na sëkk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu ah, liñ ci sëriñ bi feeñala itam ci biir xasaa idam yi muy ay melokaanam loolu rek day wane ak matam sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa dañuy daaneel foofu suñu kàddu su ko defee yaakaar naa al ustaas Abdou Salaam moom mooy ki nga xam ne mooy indi kàddu tëjtali ci turu daairatu rawdu rayaahin كون الاستاذ عبد السلام بسم الله تفضل اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله واصحابه وخير خديمه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مبوكي نيو لين دي نيو تدي لين زياره دي لين نيانال جام تدي كو ساكو تي يين دي زياره سيغ مصطفى ميغا خامني مودون ديف وقتان وي اك سيرن باي تياو ايغا خامني موكو تي دون غونغي waaye di ziar mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi teew ci jataay bi ñëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu rajo bi donte nekkuñu ci jataay bi ñëpp ñu leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay xam naa balaa ñoo ñëw ci kàddu yi ñu war a yëkkati muy kàddu yi tëj tëj yi ak cant yu jóge ci jawriñu daayira bi ak mbokk yi dañuy jëkk rek ci jaajëfal siñ Moustapha mi nga xam ne moo doon taxawee waxtaan wu ama am solo wi jemon ci melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sëriñ bi ande ci mbindam lolou nak wae lu niru lu gat waye dilu lu nak waye ku ne xamna ne serign bi mom ak xereñam romb na lolou tenk na ko ci bir ay yoni yon lele sax mu jël lepp bolé ko ci wénaw bayit nga xamne day jiko yo xamne melokani jiko la yo xamne melokani bind la lolou limu ci mbindam bari comme bo jëlé bayit wo ci alaman جميل المحيا ذكي الهجا مبر معاذ لكل تاريخ boobu tudd na ci ay melooy jikko tudd ci ay melooy ndax dafa wax ne moom Seydina Muhammad day jamilul muhayya la maanaam ku rafet xarkanam la borom xarkanam bu leer a leer la zakiyul hija ku ñawum xel waaye mabar la ku baax maanaam mbaaxam mëneesu ko nat maaz ab muccukaay la maam ku tiit rek ñëwal ci moom manil juuda yan fil faqra wa sayf qaatiun nee na yonent bi sallallahu mooy yonentub njub ba mooy géejug tab ga nabiyul huda baharun nada day xamul ida mooy gayndeeg noon ya bu dajeeg noon ya gaynde lay doon manil juuda yan fil faqra mooy tab goo xam ne day dàq ñàkk maanaam yonent bi du woon ku am buñ koy joxoñ ci am am waaye ku ku ko mos jàmbat soxla lu mu mën dana ko ca def ba mu faju kon loolu fi la am am yem moo tax mu ne moom mooy tab goo xam ne day dàq ñàkk fu mu jaar rek ñàkk jóge ñàkk jóge fa kon mel na ni Serigne Moustapha li mu andi ci waxtaan wi yaatu na lool xam naa ku weetaat teewlu ko di ci mën a jàngat yu gën a yaatoo yaatoo bu ko defee ñu koy jaajëfal bu baax ni ñu koy jaajëfale it noonu lañuy ñuy ci turu laj na saqaafiya muy commission culte ak science bi nga xam ne ñoo jiite woon wàllum tànn waxtaan yi temm yi ñu war a waxtaane ak ñi ko war a waxtaane waaye ci turu njiitul daayira bi di Serigne Aïssa Faye ñu koy sant bu baax moom sëñ Moustapha waaye di sant ñëpp ñi nga xam ne jaar nañ fi ba ñu tàmbalee ba léegi lu mel ni ki sëriñ xaadim juuf ñi nga xam ne moo fi njëkk jaar ci di waxtaan ci koor ak ay njëriñam ci yi ñu mën a laal ak yi ñu mën yi ñu mënta laal maanaam yi ñuy yëg ak yi ñuy laal maanaam ay njëriñam ci ruux ak ci yaram loolu la waxtaane ci koor ñaareelu àjjuma ba it jaaroon nañu fi doon waxtaane ci lu jëm ci yoonu murit ak organisation politique yi nga xam ne moo ne ci réew mi seenub jëflante naka jekk taxawaay ya ca daan am ak demlante yaag seqalante ya ca daan seq waaye ñetteelu àjjuma bi weesu Serigne Saliou Dione jaaroon na fi ci ay laaj ak i tontu andi ci lu leer leer ñu koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla suñu borom yokk xam-xamam waaye yokkal ko mbooleem ñi fi jaar ñëpp ak mbooleem doon teewlu tey yàlla dogal ñu comme ni ñu tàmbalee woon ni mu ñu may woon ñu tàmbali mu may ñu ñu yeggale ak Serigne Moustapha Ndour ci bu am solo boobu ñu ngi koy sant bu baax di sant mbooleem ñi fi jaar ñëpp kon lii di waxtaani koor yi dafa doon benn tomb ci tomb yi nga xam ne wala benn ponk ci ponk yi nga xam ne daayira bi da koy faral di dox muy waxtaan yoo xam ne saay bu koorteroo ajuma ju jot danañ ca amal aw waxtaan ginnaaw julli ajuma waaye ni mu amee ponk boobu it la amee yeneen muy lu mel ni ki daayira yoo xam ne dañ koy amal ci pénc yi di ko àndanteeg daayira ya fa nekk léeg-léeg ñu dem ci gox sàngam ànd kook daayira ba fa fete def ko ba nu mu gën a rafete waaye itam bokk na ci taxawaay yi muy taxawee daayira Rawdu Rayaahiin di ko taxawee mooy màggalu Tuubaa gu mag gi buy waaj ñu amal waxtaan woo xam ne danañ ko mën a yóbbuloo jëm ca màggal ga ñu amal ko fii ci mbaarum jumaa ji àndante ko waa daayiratu Rawdu Rayaahiin bu Tuubaa nga xam ne naka jekk ñoom ñooy ñëw def waxtaan wi tànn ci ñoom bu ñëwee fekk fi bokk yi ñu àndante ko ak waa dëkk bi ni ki noonu it bokk na ci daayar bi ay taxawaayam mooy bu ñu nee suba la jàngi reefan ci guddi gi am na waxtaan wu ñu fi amal naka jekk ba daayira bi sosoo ba léegi mën nañu sax ca loola la daayira bi sosoo ndax loolu mooy ay activités yu jëkk yu mu daan def lii lépp da cee dolleku rek ngir yokku ku ci am bu ko defee kon itam noonu lañ ko programme waate ren ci jàng yi ñu jëm di ko bàyyi loo xel bokk yépp rek bu ku julli timis rek wala sax ku fi mën a jullee si timis moo gën bu ko defee ñu wéyal ko comme nañ ko daan wéyale incha allah bu ko defee itam kàddu la woon yoo xam ne dañ ko doon jàllale ci turu waa laj na saqaafiya bépp waaye ci turu daayira bi yépp di sant mbooleem koo xam ne yaa ngi doon ànd ak ñun liggéey bi di ci jàpp ci zaahir wala ci baatin di ci jàpp ci xel wala doole lépp ñu ngi lay jaajëfal waaye di xamal ne lu baax moom ku ko def mën nañ ne la ca ëpp sa bopp nga ko defal ndax la ca ëpp ci njëriñ ci yow lay dellu ndax boo ci amut njëriñal àdduna it alaxira nga di ci jëriñu kon loolu rek jaar na foo ko fekk nga bokk ak nga ñàkk a bokk bu ñu la ubbilee rek nga jàpp ca kon loolu lañuy teg ci loxool ñi nga xam ne ñu ngi ci doon jàpp ci seen pexe ak seen doole ak seen xel mu rafet bu ko defee kon dañuy wàcce suñuy kàddu foofu rek xam naa di jaajëfal mbokk yépp rek waaye di ci jiital kilifa yi nga xam ne lu mu weet weet ñu ànd kook ñun ku ci mel ni al oustaz Abdul Baqi fay waaye sering Ngom ñi bi nga xam ne mosu cee tardé wenn waxtaan ak mbooleem mbokk yépp rek xam naa ku lim doomatal wala man ngaa juum wala nga fàtte waaye buñ ñu tuddee ñaar ñooñ dana mel ni yóbbaale na ñëpp ndax ñëpp ràññee nañ leen ci liggéey bi kon dañuy daaneel suñu kaddu foofu rek di jox dig daje ba beneen yoon insha allah taala wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu